asalaamaaleykum wa rahmatullah mbokki laandu ñu ngi leen di nuyu nekk turam ak santam di am kontante bu baax a baax ak mbégte di nuyu chef de village di nuyu imam di nuyu kilifa yi fi teew ak notable yëpp bàyyiwuñu kenn muy góor ak jigéen mag ak ndaw képp ku yeewoo laandu ak gox bi yëpp ñu ngi lay nuyu di la ziyaara di la sant bu baax a baax di la gërëm di wax ne kàddu nag mënul gudd waaye nag li ci ëpp solo rek lañ siy cof délégation bi nga xam ne ànd nañoo moom en tant que mouvement ànd taxaw suñu gox Malick Diouf jiite ko di ko nuyu bu baax a baax fa mu nekk ak ay mbokkam ak ay koloreem ak ay ànd jàmmam ñu ànd démb nag balaa tewi fekk dara nekkul dara ba tey ñooy ànd muy gën di rafet lool nag di wax ñëpp ne mouvement ànd taxaw suñu gox mouvement bu existe la mouvement buy dox la mouvement مالك دا سي تاخو مالك نيكول سينيغال مي خلام اك خولام اك خلاتام ييب موغي سينيغال في تمام رك مو فو تيو سوبا با تاي موغي وو اي مبوكام دي وو اي نولم دي وو اي اندي جام دي واخ رك نك مالك جوك تيفام اك غور غور لو اك بوغو غو خام لب لو ما امتي رك يينا نكو غور بي راوتينا كور موسى وا راوتينا كومين دو زون سيد بي nga xamanteni ci lañuy yewoo Malick dafa pare jàppale commune go zone sud mais jàppale commune Kër Mousse lépp lu mu mënti am Malick nee du lekk bàyyi waa kër zone du naan bàyyi leen du tëdd bàyyi leen lépp lu ma am rek fii la ko fas yéene investir incha allah rabbi man semaine passée rek ma ne moom jokkoon nañu téléphone acte bu muy def fii def ko ndax nit ñi xool leen. ko ndax nit ñi gis leen daf koo def rek te yàlla moo tax parce xam nañu waa zone sud dañoo sonn rawatina fii ñu nekk ni Kër Moussa ñëpp sonn ah. dëkk bi yëpp sonn mais zone sud ñoo a sonn kuy sonn fii zone sud fu mu nekk nii ñoom dañoo am problème si ñëpp bi loolu yëpp passé bi loolu yëpp passé bi yoo nee cant ak ngërëm bu am fu muy commencé waaye amul fu muy yem Malick nee na moo gërëm waa Landu wala mbir nga xamante ne dañoo fàttaliku démb waaye dañoo fàttaliku tey ndax pare rek mënoon na yem rek ndax def nañu ko benn yoon fa la yem mais dañu ñëw fóolleetuwaat ko di am kontaan bu baax yéen yéen bi nga xam ne jox ngeen ko ko ak yéen bi nga xam ne jox la ko ko est-ce ñu bëri ñu fii mën nañ leen pare bi waaye nag dañ koo defaat defal ko Malick nee na ci ngeen bu baax a baax jàpp te bu leen bàyyi te moom du rawatina kilifa yi fi nekk laanu bàyyiwuñu kenn malik nee na kontaan na sant na leen gërëm na leen kon naa si jëg ngeen ko de jig ngeen ko bu baax a baax a baax a baax en tout cas pare boobu suba sax joxal leen ko ko incha allah merci beaucoup ñu ngi kontaan bu baax salaamaaleykum. KMTV seen chaîne YouTube bu leen di indil ay xibaar yu wër te leer ci politique économie santé éducation religion sport. ak yeneen événement képp ki nga xam ne yaa ngi bàyyeekoo Kër Mousse moo xam nga nekk ci biir wala ci biti di nga mën a seetaan seeni événement wala match navetaan yu gën a neex ci biir KMTV KMTV njëriñu waa Kër Mousse